tàgg Ahmadul Amin moom la nu may surul masuun xar baax la feese ba ni góoj baay baa ko lëm ci xarnu bi أحببت رب العالمين مع العالمين والعالمين mbokk taalibe yi yéen waa daayira Xidmatul Xadim bu Daaru Tanzil ñoo indi seenub liggéey liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey ngir taxaw ci màggal gi nga xam ne sëriñ bi mu lenn dul moom mooy bis bi nga xam ne moom la ñu màggal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñu teew fii nag ci kanamu sëriñ Maam Bara Mbacké di ko jébbal liggéey bi di wax itam seenu sant bu baax a baax ak jàpp gi nga xam ne jàppale nañu ko ci lépp te di ko ñaanal baax sunu borom yàggal ko fi lool ci wéral ko ba li mu bëgg a liggéey Serigne Touba lépp mu def ko te ànd koog taalib yëpp ndax mboolem ñi nga xam si ne ñu la nekkal ca Daaru Tanzil am na ak sant bu wér a wér a wér goo xam ne Serigne Touba rek lañ koy seeral ci ngir jëmmam ji ndax euh, murit moom képp ko teg ci yoonu liggéey Serigne Touba rek yaa ko dimbali te loolu rek ci la ñuy xiral saa su ne di ñu ci teg kon ñu gën a santaat baax a baax te di ko siyaar baax baax ci bis bi ba du xew ñu jéglu baax a baax ci kàddu yi mbokk yi Serigne bi mu ne mi ngi leen di nuyu. di rafetlu euh, taxawaayu waa Daaru Tanzil ñi nga xam ne nii ñoo teew ci kanamam euh, mu leen di xamal ne jëf ji nga xam ne yéen a ngi koy jëf muy rawatina di féetal donga yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji mi ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci ñaanal sëñ Tuubaa defal leen ci tawféex di leen ñaanal ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ci ci bisub Cheikh Mouhamadou bii gis na jëf ji rafetlu na ko lool yàlla na sëñ Tuubaa taxaw taxaw ci seeni mbir yàlla na sëñ Tuubaa jagal seen i mbir yàlla na yàlla leen sëñ Tuubaa defal gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla na leen sëñ Tuubaa def ay ay murit saadix sëñ bi nee na sant na lool gërëm na leen lool mi ngi leen di soññiwaat bu baax baax ngeen taxaw ci liggéey bi jàpp ci te xam ne mbir mi day doog a tàmbali kon mi ngi leen di wax ne leen ngeen laxasaay summi euh, tekki euh, musóor yi def koy laxasaay fas yéene liggéeyal sëñ tubaa ci bërëb bu sell bi ndax bërëb bi day bërëb boo xam ne nii lu fi waay ñaan mu nangu kon mi ngi leen di mi ngi leen di ñaanal sëñ Baara mi nga defal leen tawféex ak taysiir ba lépp loo xam ne nii ñaan ngeen ko ci bis bi rek ngeen gis ko sant na العالمين مع الأمين والأمين وانقاد ذكره الأمين لكالكالي وجسدي ننتج أحمد الأمين moom la nu may surul masuun xar baax la fee sa bani góoj baay baa ko lëm ci xarnu bi